ñetti fan rek ginnaaw bi ñu indilee xalif général des Baye Fall Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda lu toll ci téeméeri xar kuréel gi nga xam ne moo di alalu maam Cheikh Ibrahima Fall dellusiwaat nañ ci kër Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda xalif général des Baye Fall ci altine ji dëppoo le 4 juillet 2022 indiwaat juróom xar di xar yoo xam ne xar yu mag a mag a mag di xar yu baax yoo xam ne fàggu nañ ko indi ko jébbal ko sëriñ bi boole kook xar yi nga xam ne moom lañ njëkkoon a joxe. di Pastef goo xam ne ñoom kuréel gii di alalu maam Cheikh Ibrahima wane waat nañ ko ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ñoom nee ñu duñ dañ di ko liggéeyal xar yi nag ginnaaw bi ñu ko jébalee sëriñ bi am nay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fa ñu sant leen nag bu baax a baax gërëm leen ci Pastef gi. sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Mende mi nga xam ne mooy xalif général des Baye Fall yeesalaat ak cant ci kuréel gi nga xam ne moo di alalu maam Cheikh Ibrahima te xamal mboolem taalibe yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi ne lépp luñ ko jox indil na ko sëriñ bi laa ilaaha illallaah laa la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah laa ilaaha sëñ bi sa njaboot gi di alali Cheikh Ibra sëñ Omar Seck mii ak ñi mu àndal liggéey bi di alali maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ñëwaatoon gannaaw ba nu fi jógee yàggut barki démb rek lañ fi indi woon téeméeri xar fekk nag dafa fekkoon nag mu amoon yeneen yoo xam ni da ko doon fàggu jublu si sàkku yu xar yu tedd yoo xam ne maanaam du nu bu nu ko indee daal dina néew du nu am maas wala du nu am yu nu dendal ngir feeñal yéene ju ñu am si liggéeyal la ak bëgg gu nu am moo taxoon nuy wër dëkk bi fii ba ndakaaru di wër xar yu rëy rëy yoo xam ne dana am dayo boo xamante ni bii ah dana dana faw ko njortu ñi nga xam ne ñoo ñooy saytu liggéey bi loola nag yàlla defal leen ci tawfeex nu indi fi juróom-ñeenti xar yoo xam ne maanaam xar yi moom sëñ bi mel na melokaan woo xam ne wii moom tubaarkàlla waaw ndax xar yi yaakaar naa bu nu wëree si dëkk bi xar yu toll ni ñoom dina jafee gis ndax xar yi màgg nañ te taaru nañ mel nañ nañ war a mel loolu nag lañ ci jublu mooy bëgg gu nu bëgg seet la gën ñu indi ko di la ko jox ndax ñoom seetuñu rek lu baax wala lu rafet dañoo yittewoo la gën ñu jox la ko te nun mat nañ ci seere ndax xam nañ seen taxawaay xam nañ seenu bëgg xam nañu li ñuy sàkku xar yii mu fi indi dafa toppoon dëkk bi di seet ku am xar mu rafet mu baax mu rëy loo ko ko jaayee rek jaral na ko ko du ko waxaale bu nee nangam lay jar rek day yëkkati fay loolee loola la indi doon ko jébbale wàcce nañ ko léegi ma nga fee sa kees ga dugalagun ko waaye daal xar yi nu xar mu baax di mel rek xar yi mel nañ noona waaw noo ko indiwaat nag jébbal la ko waaw boole si nag a ah, di liñ ciy sàkkut wax na ni mooy nga yàgg fi téwér rek nangul leen seenu liggéey rek ñoom seenu bëgg mooy nga yàgg fi ndax xam nañ ni sag yàgg fi mooy njariñul murit yëpp ku ko xam ak ku ko xamut mooy fajuk aajoog ñëpp nag ndax loolu ñoom am na luñ ci xam won nga leen ba nu gisal seen bopp kon nag nga ñaanal leen ñoom it faal ñu gën a dëgër ñu gën a am kattan ñu gën a am tawféex léegi rek laa koy wax fii si jataay bi booba ñoom ak seegunu ma koy wax ma la koy wax di la seereel seenu njàmbaar ak yitte ju ñu am ci liggéeyal la ñoom dencuñu dara bëgguñu dara ñoom lu nu am indil la ko rek mooy seen bëgg ñi ñu sëqal liggéey beet ñi ne si réew mi ak si bitim réew xam nañ ko si ñoom ba lépp lu nu xaaju wax ko rek loolee dañuy dañuy dañuy nangu ñoom ñëpp ndax xam nañ ni lu tàbbi si seeni loxo dana egg si fi yow. léegi laay seere ni démb moom mii bi mu fi ñëwee siyaare la ba nuppi wax ni de moom sa bëgg rek lay sàkku yow nga xamal ko ne ko yow it de loo bëgg bëgg naa ko. bi mu génnee dafa am xar mu nu estati wane ko si téléphone yi muy yar juróom fukki junni mu daal di wax ne xar mii de bëgg naa ko yot ko sëñ bi ci saasi rek am benn murit bu jigéen. daal koy yónnee juróom fukki junni mu jënd xar moomee ba mu naan ma man su ma yëgoon bëgg lu gën a rëy lii ndax sëñ bee ma ko wax léegi egg gu sama kër lii demee nii loolu nag pas-pas moo ko ko may ak yitte ak dogu ak li may wax ni seeni wax wutewul ak seeni jëf ñoom li nu wax sëñ bi moom la ñuy jëf jox gi ñu la jox seen bopp loolu rek lañ gëm loolu rek la ñuy dund loolu rek mooy seen ittee àddina bëgg di la jëfal rek soxlawuñ leneen. di la jëfal rek ba sa xol di gën di sedd waa saa su ne ñoom ñi teew nag danoo teewal ñi ñu bokkal liggéey bi waaye yaatu na ñi ngi bitim réew ñi ngi si biir réew mi ñoom ñëpp waxtu woo joxee ndigal ñoom ñii ñu yaatal ko soxna Jaañ mi nga xam ne mooy saytu loolu di ko di ko yaatal bu nu ko dugalee yaatal ko rek murit yëpp dañuy daal di wuy si xam ne ndigalu sëriñ bi jib na te sëñ bi lu mu bëgg des ko war a def loolu nag sëñ bi nga ñaanal leen faal ñaanal murit yëpp tey seereel murit yi jaarale seen addiye si moom xam ne la jaarale si moom mi ngi ñëw fi sëriñ bi waaw te cofu ko nag dafay seet la gën moom lay sàkkul sëriñ bi ngir indil ko ko sëñ bi ñaanal leen bu baax a baax xari nag wàcce nañ ko ma nga sa wana wa faal waaw bi nee na mi ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm ngeen xam ni. neena lépp lu waay jëf. neena na sa bopp rek nga ko jëfal. neena ko jëf lu baax nag. neena lu baax rek ngay am. waaw. nee na yéen ñii. nee na yéen tam. nee na li mu leen di sant. muy góor ak jigéen. na ngeen àndandoo. te ànd di ànd di waxtaan. ci di déggoo. nee na lépp loo xam ne. ànd ngeen ko def. nee na yàlla na barkeel. nee na ànd bi. nee na mi ngi koy rafetlu bu baax a baax. nee na ànd rek mooy lu baax. waaw jërë jëf. waaw lii ngeen man lépp àndandoo bi rek moo leen ko may. sëñ bi day rafetlu àndandoo bii ngeen àndandoo di liggéey ndax nee na Amar Seck mii. nee mi ngi koy gërëm. nee na ñi mu àndal ñëpp. nee mi ngi koy gërëm bu baax a baax mi ngi leen di gërëm ñoom ñëpp. muy góor ak jigéen. waaw xam ni seenu liggéey lu ñu jëf rek agsi na fi sëriñ bi. waaw sëriñ bi sant na leen gërëm na leen. waaw mi ngi leen di ñaanal ngeen am tawféex. waaw waaw nee na góor ak jigéen. waaw waaw waaw. lu waaw waaw waaw rek na leen boole. waaw. wallaay Fall dëgg la kay Fall alhamdulilah waaw sëñ bi de daa bëgg rek nu gën a ànd daa bëgg ñu gën a jàpp rek ñu gën a jàppoo ndax xam na ni foofu rek la sunu njariñ nekk foofu la sunu li ñuy jariñ àddina ak foofu rek la ne. seede ab sañ-sañam. ndax ñun moom xam nañ ne Cheikh Rafal yàlla def na ko usnu xayri ak xasaba ci làmmiñ wi usnu xayri ci nopp bi. koroog bañ fi ñëwee ne boo jógee Njaay ñu indi yi. booba xar yi waaye koroog ba mu ñëwee ñu digganteeg suñ ko ne ma ne sëñ bi ñëw yi kañ lay ñëw. ñun ki ki ki war a xar yi moo ñu moo ñu woo ba mu mën kaa leen jël si xar yi jël ko jeesi ko. parce que Cheikh Ibrahima Fall lay démb bi ma demee ba affaire affaire yi xaw a tar loolu mu fi andi woon sama jaam yi sax yëguma damaa ñëw nuyu ko wax la ma lay wax nga wax ko mu loo bëgg bëgg naa ko ma génn daane maa ngi dem bëgg lu ma neex daara jay seer fa laa damay tëdd xar yëpp agsi na ci kër gi loolu laa doon seedee rek jàpp na leen la tax ma fonk leen jàpp leen nag mooy seen yitte ak seen jëf ak pas bi ngeen am ak nangul gi ngeen ko nangul nag dëggal ko di déglu ndigalam te boole woon ci dara loolu rek nag moo fi am leneen amu fi waaw loolu nag gannaaw sëriñ bi xam na ko xamal na ko boppam ngeen dem ba bokk si moom bokk gi mooy seen yitte di yitteem mu leen di bàyyi xel si lépp loole ab cër la boo xam ne nit yàgg na fi di daw te amu ko kon suñ borom leen ko taw féexal kon nag nañ ko jàpp bu baax te fonk bu baax a baax waaw sëriñ bi daal soññee na si loolu bu baax a baax. waaw ah, jërëjëf. maa ngi maa ngi koy ko ñi ma àndal ay góor lañ. Mhm. waaw ay jàmbaar lañ. Mhm. suñu maa lay seedeel ma àndal. ay góor lañ. ay jàmbaar lañ. su fekkee ne maa tudd jigéen ñi su ma tuddee sama mi seen jëwrin day mat sëkk. waa réew mi su ma tuddee suñu Baye Mody day mat sëkk waa bitim réew suñu Mor ak porte-parole bi nga xam ne saa yu ndigal wàccee ci moom lay jaam suñu Babacar ak murid yi ñoo xam ñoo laxasaayu ànd ak man ay jàmbaar dëgg lañ loolu maa ngi te seen dërëm du fekk sa bëgg ñoom li ñuy wax mooy dañoo sàkk nga yàgg fii bi may ñëw nag dañu maa wax ne ma dañoo bëgg nga yow nga yàgg fi te weer nga nangul leen ko maam nga yow nga nangu fee yàgg maam nga wax ne man nangu naa fee yàgg naa loo bëgg ñu mën ko rek ñoom loolu rek sàkk si ndaaw na ko na ko nangu <laughs> leen ko rek Fall waaw ñoom daal li ñuy jëf lépp danoo bëgg nga nangul leen yow yàgg fi rek <laughs> waaw boo ko bëggee rek Fall dana am na na fi yàgg rek Fall <laughs> waaw waaw <laughs> waaw. Ah, ah, amiin Fall waaw waaw Fall. amiin ko suñ borom def amiin Fall amiin Fall ak sa tubarkalla waaw jërëjëf Fall jërëjëf bisimilah. waaw yéen ñu teew ak ñu teewut waaw amiin Fall amiin Fall amiin Fall amiin Fall amiin Fall amiin amiin Fall amiin.